ki leen bind ñoom ñaar séddale seen bind kooku la muy yàlla moo tax faale ko moo tax ku sa yuur ubbeeku nax la du yomb ku sa yuur tëju jaam loola day yomb nit du fàtte boppam du fàtte li ndeyam liggéey du fàtte liggéeyu yàlla ñaar liggéey bu ko fàtte cuun yàlla li mu daj ci yow ak sa yaay li mu daj ci yow bu ko nangu mukk waxtu woo doyee dee doyadal nga sa liggéeyu yaay waxtu woo sàgganee yàlla sàgganee nga sa borom doxul bu ko nangu tax xorondoma rayante Souleymane xam nga Souleymane kan moo doon conseil technique xam nga ko picc la mu ñuy wax hutu hut alxuraan tudd na ko anta mi turam ñëwul ci alxuraan te picc maa ngi ci alxuraan ne léng-léngeeral te di ci awram yàlla xeebul ken xorondom am na saar ci alxuraan yamba am na saar ci alxuraan xut-xuta nga ne ci alxuraan nag am na saar ci alxuraan jigéen am nañ saar ci alxuraan góor amul saar sóoratu rijaal amul fenn nit day bëgg boppam mënoo bëgg sa bopp nag te xamoo sa borom mais li yàlla daj ci nit nit di doyee di waat yàlla daf koy jéppi bu ko nangu milliard jaru ko jege nit jaru ko chef porotokol jaru ko dara jaru ko bu ko soxla pour lan looy doye jege nit Serigne Cheikh nee na bëri pexe saf yàllaa ko gën boo safee yàlla lépp yomb la soo bëree pexe maam Abdoulaye da daan wax ne doomi pexe dana pata waaye du gudd fan day mujj xiiboon di fen di nax nit ñi di tappale jël jigéen nax ko nangam nangam di ñaanalaate di jibar di tappali fii di mbëkki fii koñ boo luyeetee bu subaa nga toxu li ma yàllay wan yàlla wanu la dul sa kaso ga nga jëm rëbës dong fa nga jëm xam nga ko yaa ko tey caaxaan baaxul moo tax sunu borom xol la moom nit moo moom xel gis nga booy ànd ak sa ndaw si nga bëgg cuun ti takkagoo àndal ak moom xel de bul àndee moom xol fii yàllaa ko moom bu fi dugal nit benn mbindeef bu ko fi dugal dencal ko sunu borom ndax moo ko moom fii ngay àndeeg ñépp sëriñ beeg politicien beeg dëkkandoo beeg ndey ak xarit ak ñepp fi ngay ande ak ñom ndank ndank <coughs> ndank ndank boko deful do dem bu la tardel gis nga bobu daje conseil technique Moussa Souleymane moy Hut Hut moo dox relation mo la reine de Saba muy Balqis moko dox ba ndaw si toup moo tey Souleymane juum ndax ndaw si da ko da ko gasaloon kam picc mi ñëw wax ko la ndaw sa nar yépp ci àddiyee jim ko yónnee def ko ni du àddiyee de pexe la daa bëgg boo ko nangoo mu xam ne alala la ñor mu lànk du tuub soo ko delloo mu xam ne yàllaa la ñor mu tuub si ñun dañ ñu koy def ñun ñoo gën a bëgg xaalis ci la teer bi ñun ñii di wax ci affaire yi laay la ñoom ant ñii dong ak xaalis mii dong ñooñu tee nelaw waaw soo rek mënul nekk caaxaan baaxul mais soo amuloon conseil technique bu mel ni hut-hut du dem mais moo ko ci génne ba ndaw si tuub ci picc la mënoon naa ne ci picc ma yem ak picc yee ca des ñu dégg bu ko ca kaaf ga di ko jox pepp muy lekk ni ñëpp mais dafa gedd loola dem ca rangu nit ña ba am cër bu nit amul loolu muy fulla waaye tànn rek ñu lay doyee del ak tuutil pour sàmb rek bootal xale yeeg nga demal nax samay doom pour lan lan luy ndeyam exploité jaamu yàlla kenn du ko def yàlla dalay alak loolu baaxul waaye Serigne Cheikh nee na mag lu mu nangu teg ko ko aayul cheikhil qadim radiallahu anhu dafa wax lu ma neex dafa ñëw gis Sénégal am ñaar lu ñuy tuddee géwél ñu ne Iran mooy géwélu Madaani muy benn Serigne Touba ne lii de demul kër est-ce du sàgganee sa yaay liggéeyam ne jàkk Rasulullah ne ko antal kër yi mu wa annal qadimu uddiimu dëhëran fii ka sana booy firi dëgg-dëgg bu dee ku tedd rek tedd ngeen ngi yem ci Muhammad kon Moustapha may sa jëwrin te may sa géwél danaa jël sama xalima di la tagg donte kenn mënta jeexal sa jikko waaye ba àdduna tukki du ma dañ di la tagg loolu mooy fayda nit buy tànn day tànn lu kawe bañ a tànn lu ñàkk fayda ñàkk fayda baaxul mu mel ni laaj yi fi ñëw sadaxalaw laa sim laaj yi ñëw fi léegi mooy ki nee na damay laaj géwél lawbe tëgg ndax mën nañoo sëy ci seen biir walla ah dama ragal nag laaj bi xaw naa jàdd de xëy na daf ci bëgg wax ne ndax mën nañu sëy ak géer waaye dafa laaj ndax géwél lawbe tëgg ñoom mën nañoo sëy jaami yàlla nit xeetu nit yépp mën nañoo sëy ci condition gis nga baatu tëgg baatu géwél baatu géer baatu lawbe géer du métier du métier dégg naa sax gaa yu yeew yi di ko jéem a uutal tur fu ñu koy delloo mais ñii ñoo am ñoo leerle géwél moo leerle lan mooy cosaanu géwél mooy géewal mooy tànt yi ngeen may fekk rek nit ñi géewal ma mën na ci digg bay wax looluy géwél daan xam mbokk gi ñu wër leen ñu leeral ko nekki cuun ak Iran ñu ngi daje seen TV te mbokk leen te xamuñu ko Lamine di wax ba boole ñu mbokk kii baaxul baax na ittaqullaa wal arxama alquran la moytu leen li ma leen tere te ngeen moytu li yàq mbokk géwél ñëw defar mbokk gi wane li ñu bokk ba ku ne dootul def sa dootoo tooñ sa morom ki am na place bankal law bi am na métier la menuisier bois yi ñii defar kuur yi ñii defar gën yi ah yow itam ñooñu ñooy law bi kooku métier la danga naan nag law bi bu néew métier duma ko takk aussi duma ko may doom mais menuisier bois yi lawbe lanu mooy koy liggéey ci bant te xam nga ñu leen tuddee woon ñee ñi ñuy tuddee seen bopp géer amuñu dara ñun ñii rek ci el ba rek ah, rek ni mu solo ah, rafet na waaye cay ñeeño yi ñu ñeeñi mën nañ sëy aayul ndax ñii boromi jom lañu bépp jigéen bu yiw ak bépp góor bu yiw yàlla nee na nanu sëy bépp góor bu ak jigéen bu yiwadi nanu sëy alquran la at tayibaatu li tayibiina wa tayibuuna li tayibaati wal xabisuuna lil xabisaati wal xabisaatu lil xabisiina wuyu bu góor bandi bu jigéen alquran ku yiw ku jigéen ku yiw ku góor su fekkee nag góor gu yiw la ak jigéen ji yiw buñ juree doom jaru sonn tukkulóor yi nee nañu yummam mojji baabam mojji bi ngel bonata su baay baaxee yaay baax kenn du sonn ci yar am déet soow mu lewet moo neex a suukar waaye soow mu forox neexula suukar xale bi baayam di fanaan ci baar yi ndeyam di fanaan ci baar yi nga bëgg koo yóbbu ca jàkka ja da dee da ngay sonn moom moolu mbaama yam nga bëgg koo génn ci wangee toog weq foo ko danga ca man dara da koo donn aji rek moo tax mën nañu dencante ñii rek ka war a dencante ñi am jom rek waaw acca defe naa li ñu amoon ci waxtu wi jeex na ñu ki doon def waxtaan wi mooy seen mbokk Iran Ndaw ñu jox leen daje incha allahu taala suba ci waxtu wi lépp luñ ci waxtu du dëgg yàlla ñu ko yàlla sunu borom jéggal waaye lépp lu ci dëppook dëgg nag yal na ko yàlla def yu sotti ko ci àdduna bi yëpp ñu tàgg leen foofu ba suba ci waxtu ci kàttanu yàlla ak mbaaxam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.